ndax euh, Juan Branco bokk ci kenn ci ñiy layal Ousmane Sonko moom Juan Branco nag moo daal dinay rek euh, génn ginnaaw bi nga xamante ne rek. communiqué bi nga xamante ne directeur général des élections daal na koy def moom Juan Branco génn na ci xam na ni communiqué boobu c'est un faux moom Juan Branco nag xam na ni neena na euh, moom mi nga xamante ne rek mooy directeur général des élections xam na bu baax ne communiqué bi mu def dara du ci dëgg tax euh, moom mi nga xamante ne opté na bii lépp euh, liggéey muy droit électoral moom la def li nga xamante ne moo di métier pendant trente ans mu ngi woon ci li nga xamante ne mooy boobule lépp liggéey euh, mu mel ni nag nee na euh, moom xam na ko bu baax a baax a baax moo waral muy lox di tenté di nëbb li nga xamante ni rek mooy masque yi waaye moom Juan Branco xam le na ni Mor ni le droit est clair et établi mu xam nag lépp loo xamante ne rek ngi koy def mu jar jaar ci yoon jaar ci li nga xamante mooy droit bokk na également ci li nga xamante ne rek mooy la réintégration de Ousmane Sonko sur les listes électorales xam leen ni waat li nga xamante ne rek moo di seen réplique dina dina tàng jër dina sax sàpp ci ñëw gi nga xamante ne fas nañ ko ñëwaat nee na elle frappera l'esprit des juges de la magis et de la magistrature mu mel ni ñoom ñi nga xamante ne ñooy pôle avocat bu Ousmane Sonko nag instant bi dañoo taxaw temm ngir rek daal di Euh, xëccoo ak ñi nga xamante ne rek ñoo féete ci nguur gi. waa xam nga euh, mën nañoo jàpp loolu parce que bu ñu waxee euh, DG nekkuñu. Mm. li nga xamante ni moom mooy le juge électoral ñoom comme sànq lu ma la wax par rapport ak seen compétence. kon tey mën nañoo jàpp ne vraiment euh, xam nañ ne nekkuñu ci li nga xamante ni moom mooy yoon nekkuñu aussi tamit ci li nga xamante ni loolu moom mooy seen cër kon dañuy jàpp vraiment li nga xamante ni moom la Juan Branco wax apparemment moom nag dafa nekk ci benn logique boo xamante ni depuis bi mu impliqué woo ci mbirum Ousmane Sonko ba fi may wax ak yow même tracé boobu noonu lay suivre kon wax dëgg yàlla jàpp nañ ne moom aussi tamit mu ngi nekk di apporter ab liggéey bu mucc ay par rapport ak ñoom seen doxalin mais boo ñëwee ci li nga xamante ni moom moo xew dangay xam ne DGE lan mooy li nga xamante ni wala boog au nom de quoi ñu wëy ba fi may wax ak yow di sukkandiku ci ay décisions judiciaires wala boog ay décisions yoo xamante ni justice moom moo koy wàccee di ci dugal li nga xamante ni moom mooy seen ab cëraay nga xam ne lan lan doon gis ñoom seen yoon nekkuloon ci lii la justice tranché wala déet ñoom lan lan doon gis mooy liñ doon gis mooy bépp citoyen boo xamante ni da nga bëgg a nekk candidat à la candidature dem fi nga xamante ni moom mooy DG laajte fiche de parrainage ne serait-ce nga remplir les formulaires qu'il faut ñu jox la li nga xamante ni moom mooy fiche de parrainage bi bu ñu demee nag ba de exception ñu gis kaawu Ousmane Sonko ñëw nekk benn équation ci ñoom nga xam ne li nga xamante ni loolu la ñu wax bu ñu sukkandikoo ci ay defee ay instruction la ñu jot est-ce que loolu mooy li nga xamante ni dafay findeel que ni administration boobu noonu am nañ indépendance est-ce que loolu dafay firndeel que ni kat administration boobu noonu kat malgré li nga xamante ni loolu lañ leen xamee waaye ndekete da am na benn mémise boo xamante ni nekk na ci biir bizarrement dafay nekk beneen équation boo xamante ni dafay ñëw si ñoom tellement da ngay xool ci anam bi nga xamante ni ak circonstances yi ñu communiqué man gisuma vraiment la quintessence communiqué bi ñu def ci anam boo xamante ni jàpp naa ne précipitation da nekk anam boo xamante ni jàpp naa ne peut-être da am en tout cas mën naa ne paaka ci put mais lu xew benn yoon ñoom ñu àddu xañ na nag peut-être état à un administration à un bu mbiri tollee fii dafay laaj nga justifié par rapport ak décision yi nga xamante ni yaa ngi ko jël mën naa d'accord ci logique boobu kane dañ doon justifié wu pour juste mën a indi ay éclaircissement par rapport ak le fait que en prime abord ñu ne joxuñu Ousmane Sonko fiche de parrainage yi parce que dañ koo rajee ñu ñëwaat bi nga xamante ni ñoom saisir nañ tribunal bu grande instance bu Ziguinchor la ca tukkee ñu ne lan jotaguñu benn notification juge bi ginnaaw bi mu rendre ab procès verbal mu dem def li nga xamante ni moom mooy ab bataaxal jébbal ko ci préfecture bi lan lañ mujjee wax ba fi may waxe yow nii avocat yi bi dañoo defaat li nga xamante ni moom mooy appel kon déjà amagul décision bu définitif dañuy xaar euh, bi nga xamante ni jàpp nañ projet boobu mbir mi fi mu toll bu ñu demee ba li cour suprême rendre comme dernière décision bu fekkee dafa favorable ak Ousmane Sonko dinañ ko jox fiche de parrainage ci moment boo xamante ni wàllum parrainage dañ ko déterminer kon gëm naa ne mbir mi à un moment donné dootoo xam sax yow. fan la li nga xamante ni moom mooy dëgg nekk ak ay caaxaan te pourtant kaawu ki nga xamante ni moom mooy maa a sàng Karim Wade buñ doxalee woon noonu lu mel ni répété waat ñu doxalewaat la même chose mën nañ évoqué waat kani kat ñii vraiment ak lu mën di xew kaaw Karim doxalin bu mel ni lañ amoon amaana peut-être dañuy nekk di def li nga xamante ni moom mooy seen devoir mais boo xoolee wax dëgg yàlla ni ñu doxale woon ci Karim Wade buñ ko doxale woon ci Ousmane Sonko amaana peut-être coow lii mën na bañ a bëri parce que su boobaa ñoom dañuy débrasé ci mbir mi te kenn du leen ŋàññi ci comme li nga xamante ni moom moo xew mais vraiment boo xoolee communiqué bi jàpp naa ne moment bii nekkuloon le bon moment à moins que justification bi ma la wax te gëm naa ne bu fekkee da nga nekk ci loo xamante ni logique na nga da nga nekk loo xamante ni moom moo dëgg jërul justifié wu jërul aussi tamit andi ay leeral malgré dëkk bi nekk dëkku état de droit la démocratie la du mën a ñàkk benn communication pour assurer au moins sax askan bi par rapport ak euh, ñi nga xamante ni euh, disons ay détracteurs lañu mais lu si mën a xew moom mooy bu fekkee da nga def bataaxal. Hmm. nga def ko ci anam boo xamante ni dina am transparence anam boo xamante ni sa yoo nekkul ci décision yi nga xamante ni dañ koy jël mën nañu àddoo ci mesure bi nga xamante ni moom mooy sukkandiku ci kat avant man te dañoo def ay réforme nga xam ne su boobaa dina mën a eh, yenu maanaa bu fekkee am na dañoo def ay réforme wax ne képp koo xamante ni dañ la raje dootu la jox fiche de parrainage su boobaa mën nañu comprendre mais fi may waxee yow nii loi bi nga xamante ni moom lañ vote woon pour lu jëm ci wàllum parrainage en 2019 ba tey gisaguma déggaguma ab changement boo xamante ni nekk na ci kon dañuy jàpp ne benn marigance la ñuy def ci mbir mi su boobaa nag amaana peut-être yaa benn phénomène boo xamante ni am na benn dayo bi sénégalais yi ñu ci bëree bëri jox nañ ko bopp am na parrainage lu ma wax sàng rek am na ay avantage yoo xamante ni nekk na ci ci kaawu ñi nga xamante ni dañoo bëgg bénéficier wu wala boog dañoo bëgg franchir kabu parrainage bi am na si ñoo xamante ni par contre gis nañ inconvénients yi nga xamante ni nekk na ci muy mënuñu comprendre état bi dajaloo seen doole yëpp def ko ci kenn nit que ni kii moom mooy sunu candidat mu dem sur le terrain am benn opposant bu mu sekkal terrain bi nga xam ne 90 pour cent yi gagné na ko moom opposant bi loolu wax dëgg yàlla avertise la ci état aussi tamit ay messages yu alerte la par rapport ak élection yu jëm parce que chaque wax parrainage baromètre la boo xamante ni mën nañ seen natte tendance bi nga xamante ni moo war a am ci ay élection présidentielle kon jàpp naa ne lii yëpp ay stratégie la mais tôt ou tard gëm naa ko jox li nga xamante ni moom mooy fiche de parrainage mm-hmm. beneen bi topp mooy da ngay gis à chaque fois ñuy wax que ni am nañ benn vouloir u empêcher benn candidat ci ay élection présidentielle ndax étape bii nii buñ ko rombee ñu ngi sulu ñuy waat kaawu Mambay ñaa est ce que lan moo fa mën a xew ba mën a yàqal waa ji est ce que bu ñu rombee ñaari euh, moment yi nga xamante ni toll nañ ko ba dem conseil constitutionnel parce que conseil constitutionnel kenn ku nekk ci candidat yi mën nga xam est ce que di nga jàll wala doo jàll parce que Euh, comme boo premier semestre rek say devoir ngay téye sa ay li nga xam te ni moom mooy say notes yëpp yaa ngi moom mën nga defal sa bopp sa calcul jàpp naa ne bu ñu rombee fii yëpp bam leer na leen ñoom li ñu yóbbu conseil constitutionnel amuñu ci lenn loo xamante ni ñu ngi ci am sikki sàkka obligation la ci conseil constitutionnel mu déclarer leen comme étant candidat officiel mm. sinon leneen lu ñu def dafay nekk mbir yoo xamante ni parce que ñoom aussi li dafa war a am bannière bu xamante ni bu logique la dafa war a am base boo xamante ni base juridique bu leer ñëpp xam ne kat ñi nga xamante ni dañ leen a déclaré irrecevable ci lii ak lii lañ ko teg mu leer ci askan bi yëpp mm-hmm. euh, malgré nag li nga xamante ne daal xew Sénégal yëpp malgré également coowam politique bi malgré euh, mille deux yoo xamante leen jàpp ci wàllum manifestation malgré euh, gars yaa ngi dem ci mën na bi école tamit ñu ngi def naan ubbi tey grève tey mais euh, le nouveau ministre euh, des affaires étrangères wala boog l'ancien ministre de la justice de Ismaïla Madior Fall moom nag xamle na ni président bu bi nga xamante depuis notre indépendance ba tey jii Macky Sall mooy le meilleur président du Sénégal. waaw bu fekkee dafa wax ne Macky def na fi lu fi kenn mësul def mën nañ koo d'accord. Euh, dans la mesure où gis nañ fi euh, quarante mille euh, milliards yoo xamante ni comme budget gis nga fi mu mujj gis nañ fi aussi tamit dix-sept milliards yoo xamante ni comme dette soit un taux de 66 76 euh, virgule 6 pour cent gis nañ fi aussi tamit li nga xamante ni moom moo fi am muy mbënd meeg yi nga euh, mm-hmm. expliqué gis nañ fi aussi tamit ay milliards yu ñu génne def ko ci li nga xamante ni moom mooy euh, en tout cas plan ORSEC boobu voilà ba tey amagul li nga xamante ni moom mooy suivi gis nañ fi aussi tamit jeunesse bi ñu désespéré wu mm-hmm. bay woy di jël li nga xamante ni moom mooy géej gi ba tey rek bu ma ci li nga xamante ni moom mooy journal yi doon nañ mm-hmm. koo bindaat gis nañ fi aussi ay étudiants yoo xamante ni dañoo déserté en tout cas nga xamante ni moom mooy seen ay campus gis nañ fi aussi tamit ay ñoo xamante ni tellement boo ko doon lim doo fi jógee mhm. malgré loolu lépp comme ni nga ko waxee ñu ne voilà waa ji moom mooy le meilleur le ci ban fànn mu nekk mbir yoo xamante ni man ak nu ma gisee yow ak ni nga gisee keneen ak nu mu gisee mais lu ñu mën a jàpp mooy ci aspect juridique gis nañ aussi tamit mutation yi nga xamante ni am na fi nga xam ne mën naa jàpp ne ay mbir la yoo xamante ni lu ñu doon xaar moom mooy muy gën di di ay résultats yu ascendant mais apparemment da nga xam ne wax dëgg yàlla gis nañ que ni ñu ëpp ci askan bi amatuñu woon yàqin ci li nga xamante ni moom mooy sunu justice gis nañ aussi tamit ci côté li nga xamante ni moom mooy autosuffisance alimentaire ni mu yàqoo secteur privé bi en l'occurrence li nga xamante ni moo jëm ci wàllum agriculture muy mbéy meeg yu mel noonu ba fi may waxee yow depuis 2012 bokk na ci li ñu doon promettre que ne dinañ indi ay changement yu xamante ni yu moderne lay doon par rapport ak mbéy mi mais tey ba boo demoon fi nga xamante ni moom mooy Bambey précisément fi nga xamante ni fa laa juddoo muy njogopeen nañ doon béyee depuis sunu maam bu fi may waxee yow noonu la ñuy béyee xale bi mooy jàpp ci fas bi kii jàpp machine jàpp ci machine bi ñu ko ne dem loolu dafa nekk loo xamante ni vraiment lu obsolète la war a doon par rapport ak boo nekkee ci monde boo xamante ni dañuy concurrencer par rapport ak en tout cas lu jëm ci développement malgré yooyu yëpp ñu ne voilà waa ji moom mooy le meilleur fan lañ ko teg amaana peut-être am nañ seen ab bilan boo xamante ni buñ àndan ñu jàpp sa loxo mën nañ dem mën a laalal nga laal ñu ne la mu ngi nii muy lu jëm ci wàllum infrastructure es ce que infrastructure moo nekk tali kese pourtant école te Sénégal ci ñaata abri provisoire la toll. Mhm. école ci euh, infrastructure la bokk nga xam ne wax dëgg yàlla boo xoolee bërki dem rek maa ngi gis benn école boo xamante ni ba fi may wax ak yow amagul sax li nga xamante ni moom mooy bor amul sax bordage mais lan la am mooy li nga xamante ni moom mooy xam nga sakket. Mhm. Euh, moom lañ teg foofu noonu ak li nga xamante ni moom mooy CFA craintin lañ ko tuddee xaw ma yooyu yëpp dafa nekk ay mbir yoo xamante ni est-ce que warul révolu par rapport ak fii jamono toll nga xam ne ku ne xam na lu jëm ci wàllum éducation mooy lii dafa dëkk moo tax waxaat naan éducation nekkul benn daay boo xamante ni dafay tàkki dem nekkul aussi tamit benn mbir boo xamante ni dafay remplir comme navire na muy mel mais dafa nekk benn mbir boo xamante ni moom la ñëpp di amandoo pour mën a ànd ensemble tabax li nga xamante ni moom mooy àdduna bi kon jàpp naa ne tey li ñu doon xaar ci Sénégal moom mooy ñu nekkat kat système éducatif bi dañ koo changé parce que bi ñu amoon dafa yàgg ñu ne kat suñu justice bi yokk nañ ci comme aspect yi nga xamante ni euh, le nouveau ministre de la justice jël na ko compte pour def ko jàpp naa ne mooy loolu li nga xamante ni loolu lañu doon xaar mil 2012 waaye aussi tamit la ñu promettroon un état sombre et vertueux ñu ñëw moment bii nii ñu ne kat lii lañ leen duggoon def nañ ko su boobaa dinañ xam ne am nañ benn bilan boo xamante ni dëppoo na ak li nga xamante ni moom la ñu digoon mais wax dëgg yàlla fi ñu toll lan lañ mën a jàpp mooy tout sauf la nga xamante ni moom la ñu promettre loolu lañ réalisé te jàpp naa ne sax la ñu kenn du seen ay mébét wala boog duñ ko jël teg ko ci li nga xamante ni moom moo dënn loolu lañ mujjee réalisé mu nekk mbir yoo xamante ni nag état condité la ni ñu koy waxee mais lu ci bëree bëri boo xoolee nañu delloowaat ci est-ce que ñëwuñu fekk ñu tranché leen ko wala déet ginnaaw bi ñu commencé par rapport da ngay xam ne la woon amaana peut keneen bu ñëwee dafay continuer par rapport ak njiitu réew mi fi mu toll mm. daal en un man wax dëgg yàlla moom seen li nga xamante ni moom mooy bilan ak le fait que ñu bëgg a jël njiitu réew mi def ko le meilleur président man loolu góoma ko parce que lu mën a xew moom mooy jamonoy Ablaye Wade au moins sax wàllum démocratie moment boobu doon nañ gën a en tout cas saluer démocratie bu Sénégal te fi ñu nii lan la ñuy wax ñu ngi naan ñoo est-ce que duñu retirer par rapport ak yenn convention yi ñu ngi naan ñu est-ce que duñu sanctionner par rapport ak yenn convention yi Sénégal ñu koy dégg devant la CPI est-ce que pourtant loolu ndax mës fay am wala déet mës fay am depuis temps Senghor wala mais nag mbir bu jógee kenn ku nekk ak aspect bi ngay xelaate kenn ku nekk ak angle bi nga xamante nii moom ngay attaquer sa article yow yow la concerné mais man en ce qui me concerne moom mooy vraiment dama jàpp ne Sénégal fi toll nii benn recul démocratique buñ ko waxee mën naa d'accord benn aussi tamit euh, ñàkk indépendance ci ko waxee mën naa d'accord bu ñu waxee aussi tamit que ni banaliser nañ sunu système éducatif mën naa d' accord bu ñu waxee aussi tamit que bàyyi nañ en tout cas sunu ñi nga xamante ni ñoom ñooy jeunesse bi nga xam ne sax ñi nga xamante ni dañoo avancé lan lañ wax muy jeunesse moom moo nekk ressource principale pour avancer ab dëkk boo ko comparé ak Singapour nan lañ def amuñu li nga xamante ni moom mooy ressource naturelle mais seen ressource humaine lañ transformé en acte